sant yàlla bu baax di gërëm bu baax sëriñ bi ci teeru bu rafet bi nga xam ne teeru nañu ko dalal bi nga xam ne dalal nañu ko ci suba ba léegi ah toppatoo ñu aussi ñaanal ñu ah ñu ñaan nag lii nga xam ne ni ab liggéey la te suñu kilifa sant ñu ko te vraiment ñu sawar ci lool ñu yegg ci ak jàmm def ko ñi nga xam ne ñoom noonu lañ ko bëggee am na nag. ñaari étape la ci suba xam ngeen ne ñëw nañ fii pour def CRD prépa pour def CRD évaluation maanaam xayma parce que def nañ fi CRD ci ci weer wële fële ci Kaolack te ay chef de service yi jël ay engagement direction yi jël seen engagement tey nag ñu ñëw fii ci terrain bi pour xool ñoom seen engagement yi nga xam ne jëloon nañ ko fan lañ ci toll ñu def ñu laaj leen ko fii ci terrain bi fii ci fii ci kër gi euh, mais dañ ne gis daal moo gën a wóor te nag ñu ànd ak sëriñ bi dem ci terrain bi pour xool li ñuy wax nan lañ ko doxalee ci terrain bi loolu nag mën nañ ci jàpp ñett walla ba ci ñeenti point point bi ci njëkk muy sécurité sécurité gendarmerie police sapeur pompier douane croix rouge ñoom ñëpp boole nañ seen doole pour que ni ñu ko bëggee mu doxee noonu euh, tax na ba danañ def sax li ñuy wax euh, PCO maanaam benn centre bu nga xam ne nii njiit yooyu yëpp ñoo fiy daje pour di coordonner seeni action pour que vraiment euh, kaaraange boobu ñu soxla ñu mën ko doxal waxuma ko sax sànq ci tubaab mais même armée sax ci zone mi ngi ci zone bi depuis fan yi armée mi ngi ci zone bi di def seen seen nomadisation yooyu zone militaire euh, euh, commandant zone militaire bi wax na ma ko ci fan yële donc yooyu yëpp dafay wane nekk ne fu mën nit mënta jógee rek danañ jéem a saytu sa kaaraange ci yoon yëpp ak fii ci biir dëkk bi am na benn plan de circulation bu préfet Nioro defar je crois que yooyu yëpp danañ ci tenir compte parce que am na ci yoon yu nga xam ne sax dañu aaye saret bu fa daw am na yoon yu nga xam ne dañu aaye jakarta bu fa daw parce que suñu objectif daal mooy ñu fexe ba am benn màggal boo nga xam ne zéro accident incha allah léegi bu ñu jógee ci wàllu sécurité wàllu wér-gu-yaram ak wàllu cet ak setal loolu aussi je crois que am na ay jéego yu am solo yu ñu ci jël am na ay euh, yu ñu wax poste médicaux avancé ñoo xam ne ni créé nañ ko renforcer nañu aussi dotation en médicaments euh, service d'hygiène aussi dana jàppale euh, nit ñi pour que citerne yooyu ñu nettoyer ko ba mu set citerne yooyu mooy def ndox ensuite désinfecte dëkk bi vraiment donc suivre aussi lépp luy waaju ci aju ci wàllu cet assainissement aussi wax nañ fi ne dinañu indi ay camion hydrocureur ñu indi ay toilettes mobiles même loolu aussi dañu wax ne dinañ fexe ba ñu yokk ko parce que lim bi ñu jox war nañ ko mën a yokk bu ñu jógee ci loolu ñu ñëw ci hydraulique hydraulique je crois que lu am solo la parce que màggal gi moom bu ñu bëggee mu réussir moom ndox moom warul ñàkk warul ñàkk heureusement que ci dëkk bi déjà am na ñett ba ñeenti forage yu fi nekkoon ba pare mais nag ñaan nañ aussi gouvernement bi ci ndimbalam am na forage bu nga xam ne gas nañ ko bees bënn na dem nañ fa ba gisal ngeen ko seen bopp forage boobu nag ak yeneen forage yi lañ bëgg a dajale lu ñuy wax interconnexion boole leen mu nekk benn réseau bu nga xam ne dana dooleel ndox mi yemuñ foofu parce que euh, am na lu ñuy wax potence potence nga xam dañ koy dañ koy def ci forage yi nga xam ne camion bi day ñëw rek day roof kii bi rek ndox mi ndox mi dugg mu mu mu mu def citerne am je crois que seen Sen'Eau dimbal nañu ci ñaari potence yu nga xam ne dinañ ko boole ak ndox mi nga xam ne nii am na fii ci ci ci ci Porokhane potence yooyu mi ngi Nioro am na beneen potence bu nekk Kër Moussa yooyu yëpp su crois dinañ ko jël renforcer ko ak ak euh, système bi nekk fii pour que ndox mi mën a doy parce que ndox mi bu doyul rek problème lay indi moo tax daal ñu bëgg ndox mi ñu ñu accélérer ko renforcer ko pour que màggal gi mën a neex bu ñu jógee ci loolu euh, waaw toujours ci hydraulique dañ fi jëloon engagement dinañ commencé root mi fukki fan balaa màggal gi commencé je crois que tey maire bi jël na jël na wax naa ko fàttali naa ko ba léegi je crois que bu ñu fi jógee dana am benn réunion bu nga xam danañ ko tenir comité d'organisation mairie ak hydraulique bu ko defee tey ci ngoon maire bi mën a dégager les moyens nécessaires pour que au moins à partir de demain ñu mën a commencer root mi pour mën a duy mbànd yooyu nga xam ne nii moom la ñuy jëfandikoo te du tere jour bi aussi ñu mën a circuler pour mën a jox nit ñi ndox bi ñu jógee ci loolu Senelec courant bi courant bi moom itam mm, parce que ci jamono tàngaay lañ nekk courant bi il faut que mu doy ba ñu couper te sànq am na lu ñu fi remarqué am na quelques coupures yu ñu fi remarqué mais directeur régional bi daf nañu euh, dafa am ay yenn société yuy def ay ay travaux ci ci réseau bi loolu nag je crois que ñun danañ leen ñaan boobu desee peut-être ay ñett fan même ñun bu ñu mën a suspendre tuuti ñu suspendre ñu mën a aar réseau bi ba benn perturbation du ci am du tere nag aussi ñoom it danañ fa indi groupe de secours groupe de secours boobu pour en cas vraiment su ñu amee ja jafe-jafe ñu mënti indi mais daal li ñu bëgg daal mooy màggal gu nga xam ne nii courant bi nañu doy tudd coupé benn yoon courant ko loolu lañ bëgg euh, ñu ngi jee ñeenteelu point bi moo doon wàllu yoon yi parce que nag kuy màggali war nga jaar ci yoon bu yoon bu baax ba ba ngay yegg aller ak siñaale woon nañ ko dès le départ dès le départ ne ñu war a réhabilité waat yoon yi nga xam ne nii mooy jóge ci national bi romb Nioro ba ñëw ci Porokhane loolu je crois que ñu ngi ci peut-être ay quelques kii rek moo ci des ak yoon yi nga xam ne mi ngi ci biir Porokhane loolu visité nañ ko tey parce que amoon na trois kilomètres rang-rang yu ñu defoon biir Porokhane je crois que euh, dañ la waxoon nag ne nañu fexe ba ne ko parce que bu fi ñu ñu dajaloo dana bëri nit ak oto yeeg poussière bi boo mat ay problème lay indi je crois bi ñu ko waxee ah wax dëgg yàlla peut-être que ci ci màggal bii duñu guddoon ne yépp mais place yi nga xam ne nii fa la nit di gën a ëppee ah góor góorlu nañ ba di si alxemes la ma directeur Ageroute centre wax ne si alxemes moom ñuulal bi ñuulal bi commencé nañ ko sax mais d'ici alxames moom ñuulal bi danañ ko gën a renforcer ba place yooyu yépp mu am goudron pour que poussière man fa bañ a jóg di di di di sonal nit ñi loolu daal sëriñ bi yaakaar naa ci tënk moom lañu moom lañu ñu waxoon euh, ne nañu ko nañu ko nañu ko xamal waa presse bi ñu gisee ñu déggee ko noonu ah ñu lay ñaan rek vraiment nga encore nekkat suñu interprète ci xalif général des mourides euh, ci vraiment teer bu rafet bi nga xam ne nii teeru nañ ñu ko mu ñaan vraiment ba màggal gi nekk màggal gu nga xam ne lépp lu ñu sas danañ ko def mu ci jàmm ah lépp lu ñu ci sàkku ci ñaan yàlla defal ñu ko ci jàmm